voilà mbokk yi salaamaaleykum yéen ñi safoo déglu seetaan aussi senego.com euh, senego TV euh, tey nag ñoo ngi am entretien exclusif ak ki nga xam ne moo nekk Lirou Diane Lirou Diane di lutteur euh, di lutteur bu mag Sénégal xam naa kenn dootu ko présenté en même temps fii ci États-Unis parce que mu ngi fi bëgg a def carrière am ci côté lu bari Lirou Diane maa ngi lay nuyu. waaw my boy maa ngi lay ziar di la bëggee di la nuyu bu baax mm-hmm. di nuyu seen site bu mag bi muy Senego. sama waa ji moom muy sëñ Mbacke Ndiaye di nuyu yow it Babacar ah ah ku ne xam na Seydina at euh, euh, Sénégal ah Séné Seydina Sénégal Seydina bu Amérique wala léegi ban la ci bu Amérique wala bu Sénégal ñaar yëpp <laughs> ah Seydina maa ngi lay ziar di la du nuyu waa Sénégal gépp bàyyiwuma kenn ah ba ma sante yàlla ak yonent bi di sama ñaari waajur di ñaan sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te hmm. di ñaanal képp kuy taalibi rek di la ñaanal ak képp kuy ki suñu kilifa diine yi nekk ci réew mi ah yëpp ñoo ngi leen di ñaanal ñu fi nekk yàlla yàggal leen te wéral leen ah ñi fi nekkul di leen ñaanal hmm, yàlla defal leen xaaral leen àjjana di ñaanal ñëpp daal ah, di nuyu waa Amérique gépp bàyyiwuma kenn hmm, nga fekk ma fii tey ah ci Amérique ah yàlla def nga ne ma daal grand bala ngaa dem grand il faut nga wax waxoo nga ne ma non ta a ñàkk grand ah vraiment nekkuma Sénégal waaye nag maa ngi Amérique waaye su ma nekkee Amérique dafay mel ni man sama xel mi yëpp day dem ci Sénégal ndax man awma lu dul Géejawaay man awma lu dul Sénégal moom laa am ok kon nag su ma fekkee fi ci Amérique wax loo ma coow li bari lool nga ne ma nag grand il faut nga wax ma ñàkk ba ñu wax damay wax maa ngi nuyu waa Amérique gépp du nuyu ku ci mel ni ñoom ma faal ah, Baye Fall bu mag bi sama waa ji ñoom moo moo Ndiaye directeur série Madeleine maa ngi koy nuyu bu baax ak ñoom euh, Père Babou Mera Soufay ñoom Bo Diop Racine Rama ah restaurant Chez Jacob ma kenn di nuyu waa 116 gépp ñu may bëggee fii nga xam ne ñëpp ma bëgg man vraiment Amérique fu ma tourné liiru liiru ji vraiment da di bëggee sama booy jóge Brésil gars yi nekk 116 ñëpp ku ma tudd sa tur rek maa ngi jéggul di nuyu ñoom Ablaye Sarr ku ma tudd sa tur euh, Mor Ndiaye vraiment waa consul ba maa ngi nuyu ñëpp ak coxo coxo jaañ sama waa ji maa ngi koy ziar di ziar ñëpp ñëpp bàyyiwuma kenn kenn kenn ku ma tudd sa tur rek maa ngi jégalu hmm? di nuyu papi ah doomu ndeyu xaddaafi papi sama rakk sama xarit maa ngi koy ziar ba doomu ndeyu xaddaaf ak Ibou sama waa ji nga xam ne këram moo ma dalal Ibou maa ngi koy ziar bu wér a wér di nuyu yéen ñëpp du dem ba Géejawaay di nuyu sama gars yi ah waa Géejawaay bàyyiwuma kenn ah Dieye Sène Modou Dieye Sène sama xarit sama patron maa ngi koy ziar bu wér ah champion yi ah, ñoom Baara Gueye ki mu awel waa kër Pa Baara Gueye gépp maa ngi leen ziar ñoom Aziz ñoom Kor Ndiak ñëpp bàyyiwuma kenn Géejawaay ah ñoom Andaw ñoom Pa Mama Fall maa ngi ziar ñëpp ndax man Géejawaay la am booy soo ma fekkee fi Amérique su ma turul Géejawaay dafay mel ni lenn la mun ñàkk mun ta ñàkk mun maa ngi nuyu waa Géejawaay gépp bàyyiwuma kenn kenn kenn kenn ñoom mhm. ñoom Abdou Aziz ak ñoom ñëpp ñoom Kor Ndiak ah ñoom Baye ñoom ñëpp at boodu jëy seen mhm. sama gars yi nekk Géejawaay du nuyu Aliou Sall Sall ngaari bur gere maa ngi koy ziar bu yee du ko ziar at euh, kii Lat Diop maa ngi koy ziar tamit di ko nuyu at euh, kii euh, Moussa le maire Ahmed Aïdara ah at kii nu mu tudd président Malick Gakko maa ngi koy ziar tamit Malick Gakko di ko ziar di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn di dem ci mbëri di nuyu ñoom Balla Gaye ñoom Sakes ñoom Lac de Guiers ñoom Gouye Gui ah ah ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Marley ñoom Jackson fils de Balla ah ñoom xale yi yëpp tout tout tout ku ma tudd sa tur ñoom Alioune Seye ku ma tudd sa tur rek maa ngi jégul ah di nuyu ñëpp di ñaanal sama rakk ji Amath Sène Junior tamit di ko ñaanal yàlla may ko ndam lu sedd guy la 21 Amath Sène Junior maa ngi koy ñaanal ndam lu sedd guy di bëgg waa géeja Géejawaay gépp ñu génn ñu jàppale ko ñu dooleel ko xam ne doomu Géejawaay moo moo jóg te coow li dafa bari ci côté boobu dañoo jël favori yëpp jox ko Serigne Ndiaye moo tax may ñaan yàlla Ah, ah, damaa toog ba ci yàgg sama xel dem damay toog ba ci yàgg sama xel dem ci combat bi rek damay bëgg jooy ndax xamul tax coow li dafa bari ñu jël favori yi bépp jox ko Serigne Ndiaye moo tax may ñaan ñëpp autorité nekk Guédiawaye ñëpp ñu jóg ñu jàppale Eumeu seen junior ci combat bi mu jëm la 21 su ma rakk la su ma xarit la xaritu ñëpp la. di ñaanal mbër yëpp jàmm ñu jóg ñu génn ñu jàppale ko jour ëppante presse ba bu kenn bees ñëpp nañ génn xam ne doomu a Géejawaay la mooy génn mooy jogante ji maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm Eumeu Sène junior le 21 yàlla may ko ndam lu sedd guy nee naa leen yuuxu dina jub fu ko foogewul yuuxu dina jub fu ko foogewul ndax coow li dafa bari dañoo jël favori lépp jox ko Serigne Ndiaye numéro 2 jox ko Serigne Ndiaye moo tax may leen billaay dañoo xamul Eumeu Sène junior saan bu ne am na ko fi tàkkusaan bu ne am na fi mbëri bëri simple yu bëri Eumeu Sène junior moo leen freiné Eumeu Sène junior moo leen freiné maa ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam lu seddu guy damay toog ba ci yàgg rek damay bëgg damay jooy ndax li ma fa combat bi fekkul loolu rek moomu metti barki sëriñ Bamba Mbàkke di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm tamay ko ndam lu seddu guy d'accord loolu. waaw gannaaw bu ñu jugee géejawaay yaa ko wax ne oh. biir géejawaay da nga dugg nuyoo. mais jàll biir géejawaay ak li am euh, instant yi waaw euh, boo nee géejawaay sa xel dina dem ci. waaw ah. soit géejawaay wala Pikine moo jur géejawaay. waaw euh, ñu dégg fa benn information bu am ci actualité wax ne Pape Sarr dañ ca. ah oui you know you know mhm. you know sunu naataango la. Mhm. li ko dal metti na metti na ma trop damay toog di ko déglu image yi. affaire bi dafa may tuuse dafa tellement choqué tellement choqué tellement choqué ndax Pape Sarr amul lu dul Pikine man ni may défendre couleur Guédiawaye moom noonu lay défendre couleur Guédiawaye euh, couleur Pikine man ni may défendre couleur Guédiawaye moom noonu lay défendre couleur Pikine ndax Pikine la am Pikine la dëkk man Guédiawaye la am Guédiawaye laa dëkk man kenn du laal doomu Guédiawaye ku ko laal laal ma Pape Sarr ba tay wax na ma fi lu tay lu nekk si xandoon ko waaye lu lépp mu ngi nekk ci kaf ak ree ndax ku nekk sa couleur dëkk ngay défendre bi ma déggee cas bi yoon da ko teg loxo ci li amoon kon nag war nañu seetaat sunu bopp war nañu seetaat réew mi ndax tey Pape Sarr lan la jóg di wax suñu kilifa diine yi ñu jóg di wax wax yu ñaaw wax yu tegg ne mu jóg di défendre loolu di xeex loolu su dee loolu lañ ko jàppee ah kon war nañu seetaat suñu bopp kon war nañu jógaat war nañu seetaat suñu bopp lu mel ni suñu kilifa diine yi ñu di leen ay wax yu ñaaw wax yu ñaaw Pape Sarr jóg di xeex loolu di défendre loolu ñu téye ko ci loolu kon war ñu seetaat suñu bopp ñun war nañu seetaat suñu bopp te xam suñu bopp xam ñooy kan ah Pape Sarr amul lu muy Pikine Pikine la am Pikine la défendre maa ngi ñaan waa pikin Pape Sarr doomu Pikine la ña fa nekk yëpp Pape Sarr mbëri yi mun naa ñoom ñëpp seen Pape seen mag la tey su lii amee Pikine yëpp dañoo war a génn mobiliser génn xeex mars ndax ñu bàyyi seen doom ndax Pape Sarr icône Pikine la man soxoruma iñaanuma jàpp bi ñu ko jàpp dafa maa metti ca hunta ca hunta dafa ma metti you know dafa ma metti dafa ma metti lan ngay ñaan autorité yi bëgg autorité yëpp ñu génn ñu wax ci ñu jàppale ñu bàyyi ko nan ko jàppale ñu bàyyi ko ndax lool du dëgg du yoon ndax suñu kilifa diine yi nit ñi fi nekk di leen wax waxu ñu ñaaw ñu téye ci Pape Sarr dañ ko war a bàyyi dañ ko war a bàyyi mu àggale mission am dañ ko war a bàyyi man Guédiawaye laa am ah. Guédiawaye laa dëkk këleeru Guédiawaye laay défendre moom ni muy défendre Pikine man noonu laay défendre rek Guédiawaye téye bi ko téye dafa ñaaw dafa am soxna am njaboot nan ko bàyyi te lu rafet la ci jublu woon ñun amuñu lu suñu kilifa diini suñu kilifa diini ku leen laal ñu laal la ku leen laal ñu laal la kon nag su dee loolu la ko te nan ko bàyyi Pikine gépp dañoo war a génn ak lu làmb sax laa wax ñëpp a génn war ko défendre. ñëpp a génn war a génn war ko défendre ndax amul lu Pikine ah Pikine la dëkk waa Pikine nag moom ñoom tubaarikàlla macha allah ñoom amuñu lu dul Pape Sarr Pape Sarr amul lu dul Pikine muy mbër ak autorité ku mënta doon dañoo war a génn wane seen bopp ñu bàyyi seen doom ñu bàyyi seen doom ndax téye bi ñu téye Pape Sarr neexuma metti na ma man ba ma ko déggee dama am lu ma metti dama am lu ma metti d'accord bokkuñu gox tey su Balla Gaye war a bëree ak Eumeu Sène lu ne neexu dégg. amul problème c'est normal ndax ku nekk fa nga am nga ama ngay défendre waaye jàpp bi ñu ko jàpp daal ma neexuma dañ ko war a bàyyi. voilà. ginnaaw affaire Pape Sarr entre parenthèse bi ñu tijji woon xam naa dañ koy tëj euh, fi ñu dugg mooy. maa ngi nuyu sama benn waay ñu ngi koy wax Guèye Ndiaye. borom Kër Massar borom feere ak béton yi ak borom bunt yi muy Guèye Ndiaye maa ngi koy ziar bu di ko bëggee waaw. d' accord ci biir loolu euh, gis nañ actualité bi am au Sénégal muy mbër yi. Euh, président de la République dalal na leen palais bi mu jug ay coow. waaw wax fii mbër yi dañ leen a woo jox leen xaalis. non yow bi nga boobu am. Ah. gis nañ mbër géej waaye am na dem mais am na ñu demul. am na ñoo mm. xam ne ñu ci wax am ñoo xam ne waxuñu ci mm. ban ñu gisee ne mbër yi dalal nañ leen biir palais. waaw xam nga loolu euh, coow li bari na trop temps yi ku nekk nga gën di wax euh, man li ma ciy wax mooy tey jii Balla ba muy téye million ba muy am kër boobu Macky Sall toogul nekkul président Lac de Guiers ba am kër di téye million Macky Sall nekkul président Gouye Gui ba muy téye million di am kër Macky Sall nekkul président Alioune Seye ndopp waxi nopp euh, Modou ba muy am kër di téye ay millions Macky Sall nekkul président Amath Sène ba muy am ay kër di téye ay millions Macky Sall nekkul président Gris Bordeaux ba muy am ay kër di téye di téye millions Macky Sall nekkul président lii Macky Sall njëkkiwu ko fi Abdoulaye Wade mos na ñoo dalal ba fi nekkee président comprendre nga tey président woo la tous les euh, président tous les sénégalais président tous les sénégal mhm. ku woo nga wuyu ji ku mu woo nga wuyu ji Macky Sall mooy président wóolu Macky Sall Macky Sall woo la taxul nga ànd ak Macky Sall taxul nga ànd ak Macky Sall tey jii ay supporteurs yu Balla woo ko mu ñu dem taxul ay supporteurs yu Balla Gaye ànd ak Macky Sall Modou Lo waxi nopp ñoom la dëgër ñoom guy gi ñoom ñëpp waxi nopp comprendre nga wax ju bari ji matu ko. wax ju bari ji matu ko te mbër yi dong yi nekk en activité nekkut fa suñuy kilifa ñoo nga fa woon suñuy ñoo nga fa woon suñuy nijaay nga fa woon. ku ci mel ni Pape Diop Basson ma nga fa père Mohamed Ali ma nga fa woon ñoom maam Gorgui Ndiaye ñoom Ibou Ndafa ñooñ suñuy kilifa lañu suñuy papa lañu comprendre loolu ñu jox leen cër ñu jox leen cër moo gën ku nekk yor sa làmmeñ di wax wax bu ñaaw loolu baaxul loolu baaxul président de tout le Sénégal woola ngeen ñëw wuy ko audience am taxul taxul ku nekk yor sa làmmeñ di wax président comme woo da ngaa war a wuyu ndax mooy sa président mooy njiitum réew mi moom la fi yàlla teg tey su fi Sonko nekkoon nekk président su wootee mbëri su ñëwee dañuy wuy ji. d'accord mais ñi tey jii non tey jii dafa naag dama la tey Macky Sall moom la fa yàlla teg moo fi nekk mooy président ku mu woo da war a wuy ji. d'accord mi ngi wax ne euh, comme genre Tafa Mbeur gis nañ mu def benn wax ne loo xam ne président réglé wu ko maanaam fukki at benn. waaw mu juróom ñetti weer mu ñëw di leen invité. non xam nga tey jii d'accord benn côté foofu. Mhm. Euh, dafa wax da nga koy segg seggaat ko. Uh-huh. xale yooyu di wax yëpp. seen i papa ñoo nga fa woon seen i mag seeni nga fa woon wax soo koy wax wax dafay rafet. comprendre nga wuy ji président taxul nga ànd ak président nan waxante dëgg. wuy ji président taxul nga ànd ak président. wuy ji président nga ànd ak moom tey président su la wooyee da ngay wuy pourtant am na benn jour Balla Gaye wax na fi benn wax ñoom ñëpp ñu génn di ko remercier ah bi mu naan Sadio Mané at ak Sonko. ñoo bokk Casamance. Mm-hmm. pourtant bi mu génnee bi mu waxee loolu ñëpp dañoo génn dañ ko rafet dañ ko dañ ko rafetlu. tey jii président woo leen ñu daal dem wuyu ji président. Mm-hmm. ku nekk yor sa làmmeñ bu ñaaw di wax wax bu ñaaw loolu baaxul. mais est-ce ci am joxe nañ 500 millions. non xam nga man fekkewu ma yëgu ma ma. Mm-hmm. ay 500 millions ay 100 millions loolu yëpp yëgu ma tinu ma man xaw ma ndax fekku ma fa. man yow affaire xaalis bi ça ne concerne pas. ça ne concerne pas. intéressé wu ma yooyu intéressé wu ma lan moo ci am solo wuy ji bi président moo wat xañ ñett nag nit ñi li leen xawoon na xari li nu jour boobu dañoo atte wàlle sonko jour boobu dañoo atte sonko xam naa tamit loolu moo moo tax moo metti nit ñi ba ku nekk di wax waaye vraiment vraiment daal man daal xañ na loolu la jour bi ñuy àtte Sonko ñu dem wuyu ji président xañ na loolu moo leen metti ba pare coow lu bari waaye man daal su sama sago daal wax dëgg yàlla wax ju ñaaw ñu bàyyi ko mbër yi fi nekk yépp ay doomu sénégalais leen lenn ñorul leen lu Sénégal mbër yi kenn gënta bëgg jeunesse bi mbër yi ndax tey suñu amee bi jeunesse bi mooy jóg di fees stade bi di leen supporter di leen supporter keroog toyos ma jàppan dafay benn booy dafa taxaw ne ma man Balla Gaye sama mbër la woon waaye banaa ko ah ma ne ko loolu la mu ne ma woto woon dem palais ma ne ko j'arrête booy sa hunta yow attention kaay yow wuyu ji président da tax nga ànd président président ku nu woo nga wuyu ji mooy sa président ah mooy sa président kon loolu jarul wax bu bari yow daal da nga foog ne gars yi dañuy wax. non non di blabla quoi mais jàppee woon oh, non man loolu gisuma ko mooy wax dëgg yàlla man dara man daal xam naa ne gars yi leen ci mooy jour boobu ñu war ko àtte Sonko ba pare. président jox leen audience bi xam na loolu moo leen metti loolu la comprendre nga. xam naa lool waaye loolu dara nekku ci ah. président yàgg naa dalal ay mbër. Abdoulaye Wade ba fi nekkee dalal nañu mbëri. te lépp demoon. ah nan bàyyi wax bu ñaaw ñu ñëpp Sénégal moo ñu ñor jeunesse bi moo ñu ñor amuñu lu dul Sénégal nañuy waxante wax bu rafet man vraiment loolu rek laa ko gisee man ma ko dara loo xam ne ay li yëma koy gisee daal xañ na moo leen naxari mooy xañ na. li ñu doon àtte Sonko jour boobu ba pare président dalal leen xañ na lool dong moo indi problème waaye wax dëgg yàlla ñii bëgg Balla Gaye ñoo koy bëgg ba léegi ñiy bëgg Modou Lo ñoo koy bëgg ba léegi ñiy bëgg Eumeu Sène ñoo koy bëgg ba léegi ñiy bëgg Lac de Guiers ñoo ngi koy bëgg ñiy bëgg Gouye Gui ñoo ngi koy bëgg ñiy bëgg Aliou Sèye ñoo koy bëgg comprendre nga bëgg du xëy bañ bëgg doo bëgg ba ci ak xëy bañ déedéet déedéet fekk bëggoo woon man nag euh, saa yu ma waxee ñu ne xañ na géejawaay tax non non non samay rakk fa nekkoon ak axlu làmb fa nekkoon ak suñuy papa suñuy papa d'accord samay rakk fa ñoom saa kees ak foon. comprendre ah, euh, xool du bëgg bañ a wuy ah. président dara nekku ci président moo la woo am nga droit wuyu ko lam lay wax nag xañ na yaa ko xam. d'accord ak la nga fay jëlee yaa ko xam. waaye wax dëgg yàlla nit ñi dofuñu. Mhm. dofuñu nit ñi dofuñu. d'accord waaw bu fi bàyyi na wax ju ñaaw ji nan ko bàyyi tey rafet suñuy papa fa nekkoon mbëri dong nekkoon suñuy papa fa nekkoon mhm. suñuy papa nga fa woon suñuy kilifa nga fa woon tey ji suñu papa yi am na ñu ci feebaroon mhm. Mohamed Ali dafa feebaroon kan moo ko jëloon fi en charge mhm. du Marème Faye Sall moo ko yore woowoon Tunisie ah am na ay mbër yu feebaroon tey ji Marème Faye Sall moo leen jël euh, en charge faj leen waa tey ji suñu wootee duñ leen wuy ji nan bàyyi wax bu ñaaw waay wax bu ñaaw baaxul. d'accord euh, léegi ñun ñëpp ay doomu sénégalais lan d'accord ci loolu ci ay euh, vidéo yu bees yu ñu gis-gis Khadim Ndiaye moom lay attaque ne yow. kooku dafa ñàkk jom da nga ñëw kooku dafa ñàkk jom kooku euh, kooku dafa ñàkk jom kooku dafa ñàkk jom. Mhm. mag mu ñàkk jom la. ah bon ah mag mu ñàkk jom la. yéen ñaar amu leen. non non mooy mu ñàkk jom la ndax dafa am yoo xam dafa ñaaw. dégg naa ko fan yi mi ngi génn ku nekk mi ngi lay dal di la wax wax yu ñaaw lu nekk mu ngi koy wax man su ma man man man kooku ku ko xool ci li muy wax rek ku mu wax dara war la saf ndax wérul li muy laal day laal lu bon sooy laal lu bon nag da ngay sa tat di wax rek. na yow yaa wérul de yow tamit yaa koy wax ne moom moo wérul. non man booy ndur naa la ko wérul man moom kan moo ci euh, mu wérul na ma man dama ñëw pour jël ci rendez-vous c'est pas dama ñëw pour entraîner. moom moo fi yor waxu ku nekk mu la yekk lu mel ni xame. ma ne dégg naa mu naan am na ñu fa ñëwoon yor ay saak kan mooy dem pale naan da nga saak. ah naan am na yoo xam non non non xam nga wax wax dafay rafet wax dafay rafet ku nekk mu bëgg la xas su boobaa nag nag gis nga gis nga ma xamal la benn affaire genre mbir ne mel ni mel ni ah, ay Ngóor si Njaay ak Xaadim Njaay vraiment man bëgguma jaar ci tur bi sax ndax wax yu ñaaw yi muy wax dafa ñàkk fayda ñàkk fulla mu naan ma man damaa ñëw pour faj si man damay def GP moo ñemee yàlla ah moo ñemee ku mu xas fay suba mu tagg la xoolal Keba Kanté lu mu fi waxul amul. ñun Kéba woo nañu fi eh, ñu toog fii di waxtaan conférence de presse moo invité ma lu ma yekkul amul naan dañ ma jënd ci ay fukki junni ah tey jii mi ngi taxawaat di tagg Kéba ah? ku nekk xas na la ñàkk na jom ñàkk na fulla ñàkk na fayda voilà li muy wax nit ñi loolu moo nekk ci moom li muy wax nit ñi looloo nekk ci moom amul fulla amul fayda ñàkk na jom trop est-ce que du la bëgg combat tax mu lay. Oh! barki Serigne Fallou Mbacke man su ma fayul woon dara ban dinaa bëri kii li ma ko li ma li nekk sama xol bi man ci moom. ba rek nga bëgg. non dafa ñàkk fayda dafa ñàkk fayda ku mu dogal tubay ndong nga mu laa ngi lay xaar tey mu xas kii suba mu tagg kee suba mu xasaat kii su ginnaaw suba mu tagg kee oh oh c'est hunde kii lu ko dal lan waaye wax dafay rafet. wax dafay rafet. dafa am yoo xam dafa ñaaw. dafa am yoo xam dafa ñaaw. d'accord Lirou d'accord ba tey dañuy des ci làmb gis nañ benn coow bu am semaine bi entre Buzz bi nga xam ne moom li TV ak euh, Modou Mbaye ma dégg ci ay coow problème bu direct. gis nga ma xamal la benn affaire. Mhm. nee naa la. waay loolu wax naa ci fan yee passé ci lamin mhm. lépp sa moom mooy seytaane bi. kan Xaadim Ndiaye. Xaadim Ndiaye saytaane la. naa fekk la lu ci yoonam xaw ma ko génn na fii lu nekk moo ko yàq ko fi Bécaye Mbaye lu ne yekk na ko fi Bécaye mbay yekk fi du mbay lu mel ne xamee mhm. amul fulla amul fayda ñàkk fayda Bécaye Mbaye def na fi lu nekk ci làmb suñu papa la tey làmb su egsee fii liggéey na ci paar bu rëy mhm. suñu kilifa la mhm. comprendre nga amoon na ay jamono yàkkam nee na siiwa Bécaye Mbaye dégg ko micro su ko neexee taxaw mu taxaw tey di ko xas bës xale la jëm jàngi ñëw yóbbu làmb beneen lëfal ñu ñu koy wax ñëpp tey ji diaspora bi ñu ci bari tey suñu seen làmb bës moo tax ndax liggéey na ci lu am solo comprendre nga bës Bécaye papaam la comprendre nga tey war sa taxaw di wax ay wax yoo xam ne di ko attaqué di jéem xam mu affaire yi di ko jéem a gis nga kilifa day nuru kilifa day wax yëf fi kilifa di def yëf fi kilifa problème su amee nga wax ci wax ci rafet soo mënul wax wax bu rafet nga tëj sa làmmeñ nga tëj sa làmmeñ waaw nga tëj sa làmmeñ loolu mooy wax yi. d'accord yow Beuz sa euh, frère la. Beuz sama waay la. d'accord sama Lamine. Kay Mbaye aussi sa frère la euh, voilà Lamine sa euh, sa. Lamine sama jarbaar la sama rakk la. Uh-huh. xale la bu nekk ci yoon. du mbay sama fils la sama jarbaar la. Mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. ay xale lan mm-hmm. ëllëg ëllëg ñooy téye làmb ci seen loxo ndax ñoo ngi liggéey liggéey bu rafet. ñëpp ñoo ngi koy moo Modou Mbaye mi ngi liggéey liggéey bu rafet Lamine mi ngi liggéey liggéey bu rafet. comprendre lu nu am ci làmb méritoo nañ ko lu nu am ci. Euh, média mérito nañ ko ndax ñoo ngi yóbbu làmb sooy wax nga waroo bu rafet genre Xaadim Njaay ay saytaane lan ay naafeq lan gëmuñu dara lu ñuy def seen poste yoonu gëm su jógee man di yàq sama der moom mënut a yàq sama der moom saytaane la défaillant la dafa am yoo xam dafa rafetul dafa ñaaw dafa ñaaw saytaane la problème su amee nga wax ci wax ju rafet problème su amee nga wax ci wax bu rafet tey Modou Mbaye Bécaye Mbaye day bëgg làmb jëm kanam tey moom liggéey na ci liggéey ba bës tey làmb jëm kanam la bëgg liggéey na ci liggéey bu rafet te làmb bi ngi dox nan ko rafetal nan ko rafetal nan ko rafetal te bàyyi wax mu ñaaw bi ñàkk na fayda ñàkk na fulla amul fulla amul fayda lu muy wax nit ñi rek ci moom la nekk lu muy wax nit ñi rek ci moom la nekk baadoola la baadoola nag xamul yeelaa baadoola xamul yeelaa da ngay nag tëdd non non baadoola xamul yéelaa baadoola xamul yéelaa ah. d'accord wax mu ñaaw baaxul wax mu ñaaw baaxul nan ko rafetal tey wax wax bu rafet. waaye moo gën nga téye tey suba nga xas kii suba nga taggaat ki ah? man war na war na xas ku ne ba mu des man war na xas ku ne ba mu des man ah. na ma bàyyi wax bu ñaaw Ngor si Njaay man xaw ma dara lu ma koy wax vraiment man sa hunta man su ma ko bëggee wax dara samay rus doom di léeg lekk waaw yoo xam dafa ñaaw waay ñàkk na fayda ñàkk na fayda balaa fa la ñu teg ko micro yi muy rattal di xas doomu aadama yi ñi muy xas ñëpp ko gën ñi muy xas ñëpp ko gën taxaw na fi téye la dëggeen un fi lu mel ni xame wax fi sa Kayré lu mel ni xame ah Moustapha Gueye mii lu ne wax na ko Gris Bordeaux mi lu ne wax na ko ko ah ñi mu xasoon démb tey mu ñoom lay ragal seen ginnaaw na nan wax ak moom. d'accord li muy laal lu bon li na ko bàyyi. d'accord tant que bàyyi lu bon li muy laal du jóg ci wax toj toj du jóg ci wax erreur lu bon li muy laal la moo waral loolu. Ah, kon da jàpp ne day laal. day laal lu bon waaye ma xam ko sa ko très bien day laal lu bon day volé ay volé lay jël day jël ay volé waaye ma xam ko. man xam naa ko waaye yow dimbali ma ma dama ko faale. Ah, man lijjantu na ma porte plainte ok damay bañ mu plainte la rek. faalewu ma ko booy na ma porte plainte lijjantiwu ma ko. d' fi ñu koy nag. gis yaa ngi Amérique gis nga Amérique euh, été bi na. waaw mi ngi commencé tàng waaw mu ngi commencé tàng. gis nga ngi wax bay ñax ni mhm, dèjà taaloon nañ yi mais mooy loolu. gis nañ bu baax ne été bi ñëw nga fii pour entraîner. waay war a préparer waat mm. saison. waay waay waay déwén bi ndax adversaire. waaw promoteur yi parce que dégg nañ promoteur yu bari ñu déggoon koy nuyu di ko ziar vraiment voilà ndax sa combat maa ngi koy ziar bu baax koy ziar bu baax sama waay la vraiment sama frère la maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar waaw man ñi may contacté bëri na uh-huh. bëgg sama combat bëri na uh-huh. ñu bëgg sama combat xam na ñuy jaar mm-hmm. loolu amul benn problème man maa ngi fii maa ngi pare naa ñu yor seen làmme ñu ñaaw nag di ko wax mm-hmm. wax ñu ñaaw dëkkul fa mu jëm fa mu jógee la cosaanoo mm-hmm. fa mu jógee la cosaanoo ku yor sa wax ju ñaaw duma ko waxal yaa xam. d'accord man su ma wéer ak su ma wéerul yàlla xam na yonent bi xam na ñi ma nekkal xam na. dëgg la. Euh, ci biir loolu gis nañ sa ñaari euh, wal yaa ngi wax ne Moguette sa doomu nday la sa waay la. waaye suma frère la ki nga xam ne moo nekk ama neex dem Dakar. waaw télévision def déclaration. waaw euh, yi mu jotoon. nee naa nee na nee naa la te mën naa peut-être mën jàpp ne ñoom ñaar ñëpp say waay ñoom ñaar ama neex suma frère la. voilà Moguette suma ndax bi su ma sañoon ñoom ñaar ñu bokk ndey ak bàyyi. ndax ama neex yàgg na taxaw di ko wax di moo Moguette comprendre nga. ama neex dégg na lu ne ndax moo gét. est yaa ngi ciy dox déglu ma rek déglu ma dama lay expliquer man taxaw naa fii moo gét taxaw 116. Mhm. ma ne ko moo gét war ngaa mun a xuloo ku ne ba mu des a neex ndax sa waay la vraiment yàgg ngeen. Mhm. Ah, dégg na lu ne ndax yow kon nag ku ne mun ngaa jotee moom ba mu des ama neex. voilà loolu wax naa ko man moo gét fii 116. yee wax naa ko ko si si si si si si ñoom ñëpp ay frère lan ah, tey moo gét dafa doon nekk benn geste bu rafet ñu jël dañu invité jër Sénégal daga ñu bee ñun ñëpp daal ñëw fii mu dalal ñu hôtel vraiment xam nga def geste bu rafet vraiment comprendre nga di def ay social xam nga yooyu mu naaj ñu ànd ceeg moom affaire bu rafet affaire bu rafet mm. comprendre nga mm. ba tey ji tey àdduna bépp ku nekk taxaw nan moo gét moo gét moo gét dama buggoon tey ñi nga xam ne ay nitu démbam leen tam mu téye leen mu jàpp leen ñu meloon ak moom ñoom mu melowaat ak ñoom ndax tey jii àdduna amul solo loo fi gis dafay jeex moo gét xale la dafay am carrière mm-hmm. xam nga nga tey su taxawee am na droit ne dafa bëgg a nekk candidat am na droit ne dafa bëgg a nekk président Sénégal ndax doomu sénégalais su ko neexee am na plein droit waaye daal damaa bëgg nitam yi comme ni genre ñoom ama neexee ak bëri xaritam yi ñi mu àndoon ñëpp mu nekk ak ñoom benn ñu seq jàmm xam nga vraiment affaire bi nice daal ndax ku baax la xale bu yarul vraiment bëgg na réewam muy Sénégal tëgg na fi làmbu ah làmb ju réussir làmb ju neex mu waat fi tëggaat fi enema xam nga affaire bu nekk moo nekk affaire bu naay sa naay sa naay sa naay sa naay vraiment moo tax daal ñaanal yàlla defal ko jàmm xaritam yëpp mu nekkaat ak ñoom benn ñu liggéey mu rafet man daal loolu laa koy ñaanal yàlla defal ko jàmm daal di ñaanal sénégalais yëpp jàmm diaspora bi bàyyiwuma kenn ñoom Papa Ndiaye sama grand frère Papa Ndiaye bi nekk France ñoom Sadou Sëñ Mansour ñëpp jas ku ma tudd surtout rek ah maa ngi jéggalu di dem ba Atlanta ah di nuyu ñoom ah euh, mais yaarama ñoom Ibba ah ñoom mat leen vraiment maa ngi leen ziar ñoom jëli jàmmee sama yaay ji Adja Gass Angleterre du nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn kenn kenn kenn di ñuy maam jaara salon fii ah ci New York. Mm. maam jaara maa ngi koy ziar di nuyu sama booy bu baax vraiment bu fi nekk muy muy muy muy papi doomu doomu ndeyu xaddaafi maa ngi koy ziar bàyyi ma kenn daal ku ma tudd sa tur rek maa ngi dégg waa canal ñoom Mor Ndiaye ñoom Afia ñoom Grand Sam hmm. bàyyi ma kenn maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wa waa Guédiawaye sama copain sama patron sama xarit Modou Dieye Sène maa ngi koy ziar bu instant yi mi ngi Paris maa ngi koy nuyu bu baax nuyu ma waa Paris gépp Modou Dieye Sène di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal sama rakk ji Mhm. Amat Sène junior combat bi mu jëm yàlla na ko yàlla may ndam lu sedd guyu la 21. képp koo xam ne yaa ngi géejawaay bëgg naa nga génn muy mbër muy autorité ñu génn ñu dooleel ko ñu jàppale ko ndax làmb ji ah, dañoo jël favori bi yëpp jox ko Serigne Ndiaye. Mhm. vraiment loolu daal daf ma xaw a touché daf ma xaw a metti moo tax ma bëgg géejawaay gépp ñu jàppale ko dooleel ko la 21 incha allah rab bu mu indi ndam li géejawaay mhm. waaw. mu indi ndam li Géejawaay ndax Eumeu Sène daanaan la champion la def na lu ne fi def na fi lu ne ci làmb def na fi lu ne du nuyu sama sëriñ ba sëñ Siyemu sëñ Babacar maa ngi koy ziar. Samba Ndour Gassama hmm, ñoom Serif Tambédou ma kenn euh, bàyyi laat borom iraada maa ngi ziar ñëpp di biggee ñëpp ku ma tudd sa tur rek maa ngi jégul sama sëriñ ba nag ah borom Saalum xam na boppam su ma tudd ku ma tudd sa tur xam nga boppam xam ki may wax borom Saalum maa ngi koy ziar bu wér a wér a wér bàyyiwuma kenn di nuy Amérique gépp gépp gépp gépp ku ma sa tur rek maa ngi jégalu maa ngi nuyu euh, kii nu mu tudd Lamine sama rakk sama xarit Lamine Lo rakku Jibi Lo Jibi Lo borom Sénégal Lamine Lo moom mi ngi fii ci Amérique Lamine Lo maa ngi koy ziar biir di nuy Fëgala di nuy fëgale at doomu ndeyam a maa ngi koy ziar bu wér a wér a wér wér ci di nuy Baye Pël ndeysaan gis naa li ma defal dem Baye Pël maa ngi koy ziar bu wér a wér Baye Pël champion la maa ngi koy ziar ak ñoom jëf jël mu fi jóge léegi maa koy ziar jëf jël Baye Fall bu mag la kooku maa ngi koy ziar bu wér a wér ak ñoom coxo maa ngi nuy ñëpp daal ku ma tudd sa tur rek maa ngi jégalu mënu ma tudd ñëpp ni nuy waa 116 gépp sama booy nekk 116 ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp maa ngi leen di ziar sama booy jóge Brésil ñi doog a ñëw ak ñi fi yàgg naa ñëpp bëggee ñëpp ku ma tudd sa tur rek maa ngi jégalu du nuyu nag waa CS Accompagna ñoom Boos ñoom Rasil ñoom ñëpp ma ak ñoom Boo Diop Rama maa ngi leen ziar euh, moo Ndiaye directeur mat leen di ko ziar bu wér a wér a du nuyu ñëpp Sénégal yàlla na fa jàmm sax Sénégal yàlla na fa jàmm sax Géejawaay yàlla na fa jàmm sax mbër yi fa nekk yi am combat Géejawaay yëpp yàlla na yàlla may ndam fils de Balla am na combat combat bi mu jëm yàlla ko yàlla may ndam lu sedd guy moom it ah ñoo ëmat seen junior combat bi mu jëm yàlla may ko ndam lu seddu guy ñoom papa xale ñoom Alioune Seye 2 combat bi mu jëm yàlla may ko ndam Alioune Seye 2 maa ngi naan ko joyeux anniversaire happy birthday to you Alioune Seye 2 démb la woon anniversaire am borom la 11 sama rakk jooju maa ngi koy ziar bu wér a wér ñoom Marley ñu amagul combat ñoom guy gi ah, yàlla may leen combat ñu bëre daan ñoom Pape Thiam 1 Pape na leen yàlla may hmm? di di di ñaanal kii tamit nu mu tudd euh, Lac de Guiers combat bi mu jëm yàlla defal ko jàmm tam may ci ndam lu seddu ak booy yi am combat géejaway yëpp ak ñaabu ndaw xale yi am combat daal yàlla na yàlla defal jàmm ñoom papa tout ñoom caat bu waalaw borom le 29 sama doom sama rak sama xarit yàlla na la yàlla may ndam nuyu naa ñëpp di nuyu nag sama doom yi kal ku ci mel ne aada maa ngi koy ziar ñoom papa ñoom jéemu ndaw ah di nuyu seen yaay ah sama chéri koko ah chéri man amour maa ngi lay ziar bu wér a wér ah di bëggee sama yaay yàlla na ko fi yàlla yàggal te wér defal ko jàmm ziar naa ñëpp bëggee naa ñëpp Amérique gépp maa leen di ziar su ma waxee loo xam ne na naqar na kenn maa ngi jégalu àdduna amu solo nañ waxante wax bu rafet di waxante wax bu rafet mu am solo wax bu ñaaw baaxul wax bu ñaaw baaxul mbëri tey dañoo ami rakk ami jabar ami doom ku ciy wax na wax loo xam suñuy papa ñoo ngi fa woon mbëri doongu nekkuñu fa dem wuy ji Macky Sall taxul nga ànd ak Macky Sall dem wuy président taxul nga ànd ak wuy ànd ak président ah nan bàyyi wax bu ñaaw wax bu ñaaw baaxul suñuy kilifa ñoo fa nekkoon suñuy papa ñoo fa nekkoon nan bàyyi wax bu ñaaw wax bu ñaaw baaxul wax bu ñaaw baaxul ah ku nekk yëkkat sa làmmiñ di wax wax bu ñaaw loolu baaxul loolu baaxul suñuy papa nga foofu ah nan bàyyi wax bu ñaaw waaye wax bu ñaaw baaxul jërë ngeen jëf ziar na ñëpp d'accord merci beaucoup